Walf Quotidien may xëy di ñu dégtal ndëgg sërëx yi nga xamante ne ku jëkk politique bi war na ko moytu ci élection présidentielle yu 2024 euh, war ñoo am benn candidat rek ñoom opposition bi war nañu def ñaar ba ñetti say goo xamante ne buñ ca demee mun nañoo am euh, dole gu yaato yaatu ci yooyu la élection présidentielle ba tax na opposition bi ay pexeem rawatina itamit mouvance présidentielle bi ay pexeem ay candidat yu benn bokk yaakaar yoo xamante ne mun naa bari euh, te loole mun naa doon dëgër laayu mouvance présidentielle bi ba tax na opposition bi nelaw waru leen mu ngi ci yéen a bi di Walf Quotidien nañu mooy tëndiku ndëgg ko euh, lalal ñu mun fa daanu yéen a bi di euh, Le Quotidien xëy di ñu dégtal euh, kenn ci ku jeeg politique bi Ousmane Sonko ma ñu sonkorisé ne Ousmane Sonko génne nañ ko ci liste électorale yi du mun a bokk ci élection présidentielle yu 2024 loole nag ñu ngi ko jëmmal ñaar fukki fan ci weeru septembre gi ñu ne ca mairie bu Dakar Plateau yéen a moo ñu ko ci xëtam bu njëkk tax na maire bu Ziguinchor munatul dagaan baatu askan wi ci élection présidentielle yi ñu jëm yéen a kaabiri Sud Quotidien ñu ko daane ci mbirum contumace digganteem ak Adji Sarr ñaari atu kaso yañ ko ca daan doon lu mun a xajamal candidature Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci jor gi ñu denk wàllub yoon di Ismaïla Madior Fall mel na ni nag kii di Ababacar Fall bu Gradec ak maître Ahmed Thiam gisee wu ñi xam le ne ba léegi Ousmane Sonko war naa mun a doon candidat ci yile wote yéen a kaabiri yor-yor bi xëy di ak média yi ko dar lu demee ni France 24 RFI AFP TV5 Marianne Africa Magazine Ouest France Nouvelle Obs ba itamit euh, Jeune Afrique Le Monde ak leneen ak leneen yéen cabinet yi le euh, maanaam yéen rajo télé dañoo dar Ousmane ko ngir yàqal ko euh, bokk na ci ci wàllu manipulation ak itamit sos ak yàq der ak yeneen ak yeneen moo leen tax a jóg jëmee ci njiital Pastef bu ñu sukkandikoo ci yor-yor bi yéen yéenekaay bi di critique mu ngi ñuy dégtal élection présidentielle yu 2024 euh, candidat yi ci yëgloo bokk na ci euh, ñi nga xamante ne euh, mooy daanaka mouvance présidentielle bi desuñ cee ginnaaw yéenekaay bi ne ñeneen ñoo xamante ne fës nañ ci ñi fi jot a doon ay premier ministre ku demee ni Aminata Touré mos na fi doon premier ministre Mouhamed Abdoulaye Dione ba ci itamit ki nga xamante mooy Abdoul Mbaye ak ñeneen ak ñeneen yéenekaay séntu ci le wote Souleymane Ndéné Ndiaye nguruk soppi wax na xamle ne candidat la ci élection yi ñu jëm dina ci dagaan bandu baatu askan wi moom Souleymane Ndéné Ndiaye yenn kaabi di la mandat di ñu dégtal bariwaayu candidat yi eh, xayma nañ leen toll nañ ci juróom fukki candidat yoo xamante ne kenn ku ne bëgg na cee dégg juróomeelu président bu Sénégal 2024 Souleymane Ndéné Ndiaye bokk na ci ñooñe eh, fësal na candidature am ne bëgg naa indi doxalin gu bees ci Sénégal yenn kaabi di révélation mu ñu dégtal Benno Bokk Yaakaar ak jafe-jafe ya ñuy dund ci ñàkk déggoo ci candidature amadu Ba am ñu jot jot a dumooyu ku mel ni Mouhamedoune Abdallah Dionne Ali Nguy Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen Mamadou Kassé eh, njiital conseil départemental bu Tambacounda jàpp ne am na yéene eh, xalaatam may na ko Mouhamedoune Abdallah Dionne ak Ali Nguy Ndiaye mun a deltu ginnaaw ci seen candidature ba mun a fekki ki nga xamante ne mooy candidat bu Benno di amadu Ba yéen a kii abi di xëy fekki ay député ci assemblée nationale yéen a kii soobu ci mbirum parrainage bi maanaam ndeyalee candidat yi am na ci candidat yoo xamante ne am parrainage jaral na leen lu ne lu toll ci fukki million ak euh, jàpp ñaar fukki million la ñu teg ci taabal ji fas yéene ko jox ay député ci assemblée nationale ndax bëgg nañu am fukki député ak ñett yoo xamante ne ñoo leen fas yéene parrainé yéene cabinet tax na yooyu les candidats ña ngay def seen kéemtalaay kattan ba am ay député yu ñu mun a peeg jox leen kenn ku ne fukki million ak juróom jàpp ñaar fukki million yéene cabinet ñañ ca ràññee bokk na ci kenn nag candidat la goo xamante ne ku jigéen la mosta bokk ci élection ba tax na élection yi de mu jaral ko ak parrainage bi mu ngi cay génne ay millions keneen ka ca génne ay millions ngir am parrainage maanaam ndeele ab candidat la goo xamante ne ku góor la mu mujjee woon na bokk ci élection présidentielle yu 2019 gi weesu doonoon na ci candidat eh, am na ci ñaar ci ay député yu féete ci opposition bi ñooy courtier ya ci assemblée nationale ngir fexe ba nañu ñu mun leen a fay xaalis ñu a candidat yéen a bi di réew mi quotidien réewum Sénégal naw nañ ko lool ah, ci faj eh, feebar yi nga xamante ne du wàlle Sénégal ak nam ca taxawee jur na waxtaan gu yaatu ah, foofee ca mbootaayu xeet yi ONU bu ñu sukkandikoo ci jawriñ gi ñu dénk wàllu paj mi yéen a bi di le peuple quotidien moom la xëy fësal ah, Sénégal na muy xeexee jëm ci feebar yi nga xamante ne du ñu wàlle Sénégal ak matuwaay ya ca jël ak jéego yañ ca def ba tax na rafetlu nañ ko ca mbootaayu quotidien yéen a kii abi di laas mu ngi ñuy jégtal ci wàllu suuf euh, séddoo nañu suuf sa foofee ca mburkat tong-tong lañu ko dupe scandale la goo xamante ne foo ko naat weesu na ko yéen a kii abi xëy duñu niital euh, Cheikh Ahmed Tidiane sherif euh, jëm ci guddik Mawludul Nabi guddi googee sax ñu ngi koy waajal fépp ci réew mi rawatina ca Tiwaawoon mi fas yéene doon célèbre yoon askan wi antenne quotidien xëy duñu xamlek li dox ci diggante Seydi El Hadji Rawane Ngom ak lay doon mu xadamu Seydi El Hadji Malick Sy yéen a kaabi xëy ñu dégtal ñaari kilifa diine yooyu le mu ngi ci yéen a kaabi di enquête yéen a kaabi di l'évidence ne ARTP moom jël na matuwaay yi war ngir fexe ba ñu mun a amal gàmmu gi ci anam yu mucc ayib mu ngi ci yéen a kaabi di l'évidence l'évidence xëy ñu dégtal ay ndawu Saloum jóg nañu taxaw ngir bëgg Makumba Diouf doon um, jawri ngi ñu denk wàllu mbéy mi uh, ci remaniement gañuy waajal mu ngi ci yéen a kaabi di l'évidence yéen a di stade xëy ñu dégtal Edouard Mendy mi ñu ne xàmme mëneetuñ ko euh, mëninam réer na ko ci Arabie Saoudite ñu ngi ko fay dugal ay bi ci juróom ñaari match yamu jot a dugal nañ ko fukki bi ak ñett yéen kaabi di stade ne kenn xàmmeetul Edouard Mendy euh, na muy taxaweek na muy góoloo léegi euh, tàmbale naa jaaxal ñu bëri yéen kaabi di suñu lamb ne combat Ama Baldé Modou juróom juróomi fan ci weeru novembre lañ ko jàpp ba tax na ñaari mbër yi kenn ku nekk bëgg na cee amee ndam mu ngi ci yéen kaabi di suñu lamb yema fu ñu jeexalee xetu yéen